برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان alquran dafa wàccoon avant mu fi joge ne ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatiman nabiyin yonent yàlla muhammad daal yonent yàlla la te moo matal yonent yi li ñuy firi yonent dootul ñëw ginnaawam waaye bàyyiwuñu loxoom neen ba muy dem eh, ubbi na buntub wilaaya moo tax góor yàlla yi ñëw yonent yàlla muhammad di leen chargé ay mission yi ñuy dox mooy mu leen di jox ay tariqa ñu yeggal nit ñi yàlla ci bi wasilati tariqa yi nag bëri nañ lool ci jamono ndax xëy na jamono tey fii suñ tollee tey jii dañuy fàtte tariqa yu bëri waaye amoon na fi tariqa uwaysiya amoon na fi tariqa qalandibiriya amoon na tariqa siddiqiya amoon na tariqa malamikiya amoon na tariqa kibrawiya amoon na tariqa hamdaniya amoon na tariqa rukniya amoon na tariqa xalwatiya amoon na tariqa jahrawiya amoon na tariqa burhaniya amoon na tariqa sahrawardiya أمون طريقة خفيفية أمون طريقة شاذلية أمون طريقة هاتمية نيوم نقشة بندية نيوم غوصية نيوم جنيدية نيوم سهلية لب أي طريقة لا جوجي كيان تيال الله محمد جوكو أي غور يالا سور ميوب جان نيسا يالا واي شيخ جان دينيوه دفن طريقتي تنسخ جميع الطرق كما ملة محمد نسخت جميع الملل sama tariqa bi dana effacé mboolem tariqa yi mu des fi ba abadan comme ni diine Muhammad effacé mboolem diine yi loolu muy firi diine Muhammad yonent yàlla Muhammad bi mu wàccee ci kaw suuf yàlla ne man yabtari gayra al islami diinan fa lam yuqbala minhu tey ku jaamu ku ma jaamu man yàlla te jaaroo ci diine islam du ma la nangul hmm. Cheikh Tidiane nag waxul ne ku jël beneen tariqa yàlla du la ko nangul mais pour tariqa boobu yeggal la yàlla ginnaaw bi nee na tariqaam bi nasax na mboolem tariqa yi comme ni diine Muhammad nasaxee mboolem diine yi mhm. kon ngeneel arab yi dañuy leen ñu ne fa alal waarisi maalil mawruus maanaam ki doon ñeel na ko la ñeeloon kañ doon soo doon ne nit lam amoon lool ngay am mhm. comme que yonent yàlla Muhammad ba mu ñëwee fii dafa fekk diine isawiya diine barhami diine majusi diine eh, dahri diine yi dañoo bëri woon mhm. yàlla ne du nangu kenn benn diine lu dul lislaam Cheikh Ahmada Tidiane yi ba mu ñëwee doon yontu yàlla Muhammad ci zahir doon ko ci baatin nee na yonentu yàlla jox na ma mbóot mooy tey amul benn tarixa buy mën a yeggal nit yàlla lu dul sama tarixa bi man Cheikh Tidiane lan ay maqaamaat maqaamatu Cheikh Ahmada Tidiane yi mm-hmm. maqaama maqaamaam yi maqaamaam yi ko yàlla jagleel maqa Cheikh Ahmada Tidiane yi yàlla may na ko ay maqaama yu bëri kenn mënu koo lim bépp góoru yàlla rek fooy toll ci yàlla ñu ne lii sa maqaama la yàlla la ko may Cheikh Ahmad Tidiane jaar na foofu ndax Algérie la juddoo mooy aynu maadi waaye dem na Faas dem na Masr dem na Makka dem na Madina dem na fu nekk daje góor yàlla yi te képp ku mu rek am na lu ko jox mu dem nag ba nga xam ne kenn mënatu ko gérer ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi feeñu ko jox ko tarixa bi mais maqaama Cheikh Tidiane nag soo ci lim ñett yi gën a màgg ci maqaamam yi yooyu rek doy na mooy maqaama xatmiya ak maqaama xilaafa ak maqa maqaama katmiya ñetti maqaamaam la yoo xam ne amul benn góor yàlla gu jege maqaama yi benn bi mooy xatmiya xatmiya lu muy firi mooy xatmul wilayati fi ummati muhammadin mooy matal wilaya ci xeetu yonent yàlla muhammad yaani wali yàlla yi xam nga yonent yi yonent bi muhammad saa sallam moo leen motal yonent dootul ñëw ginnaawam waaye nag cheikhu tidiane yi ni matale wali yàlla yi bokul ak ni yent yàlla Muhammad matale yonenti firi wul ne wali yu dotul ñëw ginnaw Cheikhu Tidiane waye ni firi moy wali yu gu ñëw ginnaaw Cheikhu Tidiane ci ron maqam ak lay nek parce que yàlla may na maqam bi ñu tuddé khatmul wilayati fi ummati muhammadin moy matal na wilaya ci xeetu yent yàlla muhammad fofu nak dafa am ben sew sew matal wilaya ñaari façon la matal na wilaya moy amul ben wali buy ñëw ginnawam bu ko raw maqama ndax guddi ga nga xamee ne yàlla may na ko maqaama gi boobu moo ngi am juróom fukki at moom Cheikh Tidiane ndax yéen ci yàlla Muhammad ba koy yàlla di rañaan jëm ca asamaan di ko jox julli ñi gën a foor ci diine gi boobu juróom fukki at la amoon mm-hmm. Cheikh Ahmad Tidiane tamit ba koy yàlla di may xatmul wilayati fi ummati Muhammadin moo ngi amoon juróom fukki at comme yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ koy rañaan di ko jox julli mm-hmm. waaye bañ ko joxee maqaama gi dafa woo taalibeem bu tudd Muhammadul Ghali daal boobu nag moo ngi bëgg a wax maqaama goo xam ne yàlla jagleel na ko ko te bëgg na su ko ko waxee ñu posé ko ay question ngir mbir mi leer mu daal di wax ne qadamaaya haataani ala raqabati kulli wali sama ñaari tànk yi ñoo ngi ci bopp bépp wali yàlla tey képp koo xam ne wali yàlla nga rek xamal ne sama ñaari tànk yaa ngi sa kaw bopp Mouhamadul hmm. Xaafis Mouhamadul Ghali taaliyam boobu laaj ko ne ko yaa يا شيخ كيف تقول هذا والشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد يقول قدمي آته على رقبة كل ولي mu ne nan ngay waxee nii te Cheikh Abdul Qadir Jeylaani benn góor yàlla la ca Bagdad borom tariqa Sadiriya newoon na sama tànk baa ngi ci bopp bépp waliyu yàlla te boo ak léegi mën na juróomi téeméeri at yow ma ñëw fii nga ne sa ñaari tànk yaa ngi ci bopp bépp waliyu yàlla nan lay mën a nekkee Cheikh Ahmad Tidiane ne ko sadaqa acheikh Abdul Qadir Jeylaani walakinahu yuridu awliya zamani Cheikh Abdul Qadir Jeylaani wax na dëgg waaye wali yam bokkoon jamono la namoon ci wax jooju maanaam ñam bokkoon jamono yëpp moo leen raw tànk ma ngi ci seen kaw bopp waaye man dëggul li ma lay wax qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin lillah min ladun aadama ila nafxi fi suuf sama ñaari tànk yi ñoo ngi ci dox bépp wali yàlla bu yàlla sàkk kañ jëlee ko ca yoon ci yàlla aadama ba yàlla ba israfil ës bu tëri bésu pencum yàlla hmm. amul benn wali goo xam ne nekkoo ci sama ron tànk hmm. kon lii benn misaal la ci xatmul wilaaya maa ngi ñëw ci makaama yëpp ñetti makaama hmm. mais xatmu xatmul wilaaya dafa nekk benn sew-sew parce que suñ nee Seexu Tijaani dafa matal wilaaya léeg-léeg yaakaar ne xam naa xëy na wali dootuñu ginnaam waaye déedéet du loolu dafa yegg ci makaama wilaaya yoo xam ne wali yàlla gu ñëw ci ron tànkam ngay nekk te lii mu wax noonu sànq te Mouhamadou Ghali di ko déglu dëggal na ko waaye Mouhamadou Ghali bàyyiwu ko mu ne ko yaa cheikh alam yumkin lillah an yaxluqa waliyan ala minka maqaama mu ne xanaa jàppalelul ci yàlla mu sàkk wali bu la ëpp maqaama sa ginnaaw xam nga loolu question bu am solo la loolu moo tax Cheikh Ahmad Tidiane woo ko mu ñëw pour mu posé ko question yooyu ñi nga xam ne dañ ko waroon laaj te gisuñu cheikh mhm. mu taxaw seen place laajal leen ko mu ne xanaa yàlla mënul sàkk wali sa ginnaaw xam ne moo la cheikh cheikh na ko bala kama annahu yast yumkinu lahu an yaxluqa aadama min muhammadin wala yafal comme ni mu mënee def ku ëpp muhammad garaat comme ni mu mënee sàkk ku ëpp yonent yàlla muhammad garaat te du ko sàkk noot waaye du ko sàkk ndax maqaama yi ñaar la xatmul nubuwati ak xatmul wilaayati yonent bi moo matal yonent yi man maa matal wali yàlla yi ndax nekkul li yàlla lu yàlla man yëpp def ko mhm. am na yoo xam ne yàlla man na ko waaye du ko def bii ci la bokk lii nii la la Mouhamadul Ghali posé Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane mooy laaj bi mais beneen motal wilaaye am na boobu ci zahir la lii nii ci baatin la mooy yent yàlla isa su wàccee mujjantalu jamono fa yanzilu isa la takunu wilayatun bu ay dama maati ruuhi wa sirru yudfanu Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass nee na su isa wàccee la takunu wilayatun wilaya dootul am wali yent yàlla isa suñ ko suulee ci suuf rek wali dootul juddu ndax suñ ko suulee ci suuf téeméeri at ak ñaar fukk ñoo ci tegu dëkku penc taxaw mooy àllaaxira taxaw mooy fa yaxtimu wala fa yanzilu isa la takunu wilayatun lu ay dama matti ruuxi wa sirru lutfun kon ndeke Cheikh Ahmad Tidiane matal na wilaya waaye ci benn wali du ñëw lu dul nga nekk ci ron tànkam isa matal na wilaya wilaya zahiriya bi mooy benn wali yu dootul ñëw lii jàng nañ ko ci kutubu tariqa soo demee ci Muhammad ibn Abdul Wahid an-Nazifi nii la ko waxee kon nag xatmul wilaya matal wilaya benn maqaama la ci maqaamay Cheikh Ahmad Tidiane hmm. sama mayee tuuti ñett yëpp danaa ko leeral mm. ndax xatmul wilaaya euh, Cheikh Ahmad Tidiane am na ko bi muy am juróom fukki at mm. te Cheikh Ahmad Tidiane bi muy dajeeg yonentu yàlla Muhammad yonent bi di ko jox tariqa bi boobu quarante six ans la am mooy ñeen fukki at ak juróom benn la amoon moom Cheikh Ahmad Tidiane mm. yonentu yàlla Muhammad jox ko astaghfirullah téeméeri yoon mu jox ko salaatul fatih téeméeri yoon tariqa bi la woon noonu la njëkkee woon boobu laa ilaha illallah fa bokku ci xam nga laazim bi ñett la astaghfirullah te yoon la ak salaatul fatih téeméeri yoon ak la ilaha illallah temer yon mais yonent bi def ko njëkk a jox ci atum junni ak temer ak ak ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn boobu Cheikh Ahmad Tidiane ngi am 46 ans mu jox ko astaghfirullah téeméer yoon. salatul faati téeméer yoon. Cheikh Ahmad Tidiane du loolu ñeent ñeenti at mu tombé mu am 50 ans mu tombé fa muy amee maqaama xatmul wilaayati. foofu la ko yonent yàlla Muhammad yokkalee la ilaha illallah kon ci bopp. جروم فكي أت موم شي أن تجاني بيو أمي جروم فكي أن إذا كنت يا الله محمد أن لا إله إلا الله بيكي أن الله بيكي جوخ تميد مقام أن الولاية في أمة محمد ليني أن مقام ختم الولاية مطل الولاية أن يونس يا الله محمد بيكي أن موي مقام خلافة خلافة نك أن ووتو يونس يا الله محمد أن ني يونس تبي ووتو يا أن حمد يونس تبي موي خليفة أن الله تكو من ديفمي هو الفاعل المرفوع بالدم نائبا عن الحضرة العليا وهو جدير yonent yàlla Muhammad dafa remplacé fii yàlla te yàlla jógu fi Cheikh Ahmad Tidiane tamit dafa nekk xalifa yonent yàlla Muhammad te yonent bi mosu fee jóg ndax su fi jógoon konoon du dajeeg moom ba kooku di ko jox tarixa bi moo tax yonent yàlla Muhammad suñu waxee dee na nekkul ne comme ni suñuy maam yi di deewee waaye Abul Hasan Chazali wala Abul Mawahib Chazali waxoon na ko نانا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن نفسه أنه ليس بميت وإنما موته عبارة أما لا يفقه أن الله وأما من يفقه أن الله فها هو يراه يرى موني جسنا يونتي بي من نتلي من مم ديوم فيري ولو دول دفا لا خوني خمول يال واي غور يالا نيوغي غيس يونتي الله محمد يونتي بي نلين دي غيس ndax ku nekk xam na ne yonent bi dee na waaye kenn jullewu ko mhmm. yonent bi dee na kenn doon na ko xaalis kenn doon liireem kenn doon xaalisam hmm. kon kooku deewam bokkul ak deewu ñeneen ñi hmm. moo tax nag Cheikh Ahmad Tidiane suñ ñëwee gis na yonent yàlla Muhammad mu jox ko tarixa bi te ñu ñu bëri dañuy weddi ku dee depuis junni at ak téeméer ak juróom fukki at ñu ne gis na benn waaye jox na ko tarixa loolu nan lay mën a nekkee waaye yonent bi bu <coughs> leen fàtte biñ ñëwee gisee naan ñoom yonent yàlla Ibrahim bañ ko ràññaanee ci kaw asamaan gisee nag ñoom Isa gisee nag ñoom yonent yàlla Moussa Ibrahim Ibrahim su nekkee ne man na gis ñu ko njëkk kon ko mu gis ñu ko mu jubal du problème waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam def la laa yushaaku ahadukum shawkatan illa ahussu ala ma kenn ci yéen du jamu dëkk lu dul maa koy njëkk a yëg su lay njëkk a yëg sa métit xam nga ni moo ngi fi su fi nekkul woon du la njëkk a yëg sa métit uh-huh. waaye sax la gën a jege sa bopp yàlla ne ne wa taraahum yanzuruna yaa ngi lay xool waaye gisuñu la kon yaa ngi seen biir uh-huh. yàlla ne ci alquran waalamu anna fiikum rasulallah xam leen yonent bee ngi ci yéen ku koy gis dana ko gis ku ko gisul du ko gis waaye kenn mënul wax ne yonent bi dee na jeex na dootul mën a njëriñ ginnaawam kon ci loolu mën nañu wax ne ndax Cheikh Ahmed Tidiane mhm. ndax da ngaa bind fii ne waxal raa Cheikh Cheikhu Tidiane mhm. rasulallah rasulallah waxal raa da nga laaj mhm. ndax gis na ko waaw wala déet moom Cheikh Tidiane ndax gis na yonent bi wala déet waaw moo ngoog xam nga ñu bëri dañu wet di gisee ji mm. ndax dañ koy teg ne yonent bi nit la woon comme ñëpp rek parce que yàlla yàlla moo nettali ci alquran ne yonent bi ne innama ana basharun mislukum yuha ilayya man nit laa comme yéen yuha ilayya waaye yàlla daf may wax yu xam nga aaya bi rek soo xoolee foofu hmm. yuuxa ilayya baatu yuuxa ilayya dañ may wax yi mooy différence diggante yonent bi ku dul yonent bi hmm. koo xam ne nit la comme yow rek su yemoon foofu ñu ne nit la comme ñun rek waaye def ne yàlla def may wax yu kon loolu beneen loxo la bu ko yàlla beral goo xam ne yow amoo ko hmm. parce que yonent bi am na grade su waxee waaw dara war ci yow ba pencum yàlla soo ko deful am bàkkaar xam nga kooku nu réewul ak yow ca ga la taxaw nee na inna allah farada alaykumul hajja yàlla faratal na ci yéen aj في مقامي هذا فيما تخونيه في يومي هذا جسم بسبي في شهري هذا جسم أتمي في عامي هذا جسم في شهري هذا جسم ويروي وفي عامي هذا جسم أتوي إلى يوم القيامة بسوء بنتم يلا ba mu waxee loolu kenn ci saaba yi laaj ko ne ko a fi kulli ami ya rasulallah est-ce que aj gi at bu nekk la wala déedéet yonent bi noppi mu ne ko yonent bi est-ce que aj bi bépp at la wala déedéet yonent bi noppi ba ci ñetteel bi yonent bi ne daawuni ma taraktukum walaw qultu naam la wajaba aleykum wala mastataatum mhm. bàyyi leen ma fekk maa ngi leen di bàyyi su ma leen waxoon waaw moo war ci yéen te du ngeen attan aji màkka chaque année kon kuy xam koo xam ne su waxee waaw rek mu war ci yow xam nga ne kooku bokkul bokkul ak yow koo xam ne su waxee waaw rek yàlla nangu waaw gi ba mu nekk farata ci yow ba doo soo ko deful am bàkkaar mhm. kooku bokkul ak nit ñi loolu moo tax duñ duñ jël yonent bi def ko comme kenn ci ñun ni ngay deewee génn àdduna dootoo amati benn njëriñ waaye yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam nee na man ku ma nuyu ci sama bàmmeel danaa la delloo nuyu kon yonent bi moo ngi dund su nekkee ne yonent yàlla Muhammad moo ngi dund kuy dund gis kuy dund loolu lu yomb la xel man na kaa namm ndax Yusuf an-Nabhani waxtaan nag ak Ibnu Mayaba waxtaan gu yaatu Ibnu Mayaba ne ko foo teg yow ne Cheikhu Tidiane yi gis na yonent bi te yonent bi deewoon na lu yàgg yusuf la yusuf an-Nabhani ibnu Mayaba moo ko laaj yusuf an-Nabhani ibnu Mayaba da doon critiquer tariqa bi di critiquer Cheikhu Tidiane di weddi tasawuf mu dajal yusuf an-Nabhani yusuf an-Nabhani nekk borom xam-xam alim nekkoon ci beneen tariqa mooy tariqa Chazaliya génn fa ñëw ci tariqa Tidiane bi mu laaj ko nag ndax nan la Cheikhu Tidiane mën a gisee yonti yàlla Muhammad mu ne ko waaw yàlla moo ne ci alquran laa taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya bu leen yaakaar ne ñi dee ci yoonu yàlla ñi ñu rey mooy martyr ñi nga xam ne shuhada u lañ bu leen yaakaar na ñoo ngi dañoo dee mhm. ñoo ngi dund ci man man yàlla mhm. mu ne lii aaya alquran la mu ne ko wax mu ne ko est-ce que xam nga yonent yàlla Muhammad shahid la dafa dee ci xare ci yoon yàlla la de mhm. nan la yonent bi dee xam nga yonent bi dañ ko rey te loolu soo jàngee siira dégg-dégg dañ ko xam ndax Zeynabu bintul Haris benn yahudiya la ca Xaybara moo laajoon lan la yonent bi gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko pooju xar mu dem jël pooju xar bi togg ko def ci poson indil yonent yàlla mu mat pour rey ko mhm. yonent bi lekk na ci xamp lekk beneen xamp bi ci la ko pooj bi wax la taakul ni waana masmuma man dañ ma façonné yow yonent bi booba nag la yonent bi woo Zeynabu bintul Xaris mu ñëw mu ne ko lan moo tax def li def mu ne ko damay seet su nekkee ne buur nga gu ñu bugg a rek soo ko lekkee dee su nekkee ne yonent nga nag yàlla dina la xamal lan moo nekk ci pooj bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ko léegi xam nga lan la mu ne ko waaw xam naa ko mu ne ko demal jéggal naa la mais gis nga poson boobu yonent bi lekkoon loo poson booboo ko mujj ndax def ne ma zalat sumumu xaybaratu aabiduni hatta qataat buhari hmm. mu ne poson ya ma lekkoon ca xaybara dañu di di ñëw ci man di delluwaat ci man ba dagg nañ samay butit fi mu nekk kon yonent bi su nekkee ne wér na ne moom shahid la te yàlla nee na ñi shahid ci yoonu yàlla ñi dee ci waaye lekk na ko faatuwul faatuwul hmm. lekk na ko lu yàgg te faatuwul yonent bi shahid la Aboubacar shahid la Umar la Ousmane shahid la Seydina Ali shahid la hmm. li rek yonent bi moo ngoog Aboubacar li ko rey mooy jaan nga ca xuntuwa hmm. ndax yonent ba muy gàddaay moom la àndaloon ñoo ngi jëm Madina hmm. mu tombé nag benn jaan goo xam ne bëggoon na gis yonent yàlla Muhammad mu ñaanoon ko yàlla yàlla na ko demal ca xaaru ba ca xuntuma yonent bi suy gàddaayu dana fa jaar nga gis yonent bi nekk na fa ay junniy at yonent ba muy gàddaayu ànd ak Aboubacar jëm Madina yonent yàlla Muhammad a ngi tëdd nelaw ci pooju Aboubacar ak Seydina aw Bakrin ma ngi toog jaan bi di waaj a génn ci pax mi mu gis ko jël tànkam fatt ci paxu jaan bi balaa moo génn di déranger euh, tërëlinu yonente bi Muhammad sallallahu alayhi ak nelewam jaan bi matt ko waaye teggiwul tànk jaan bi mattaat ko teggiwul tànk loolu moo tax Seydina Abu Bakrin tur luñ ko jox ñu ne ko yow yaay siddiqu mm-hmm. gu méngoog moom la ci maqaama ndax su doon keneen su ko jaan bi mattee mu teggi tànkam waaye ngi respecté nelawu yonente bi jaral na ko moom jaan bi ko mu dee te kenn du yëngal yonente bi mm-hmm. yonent ba mu yeewoo boobu ronkoñu Abubakar a wax wadd ci lexu yonent bi yonent bi yeewu ne ko Abubakar lan la mu ne ko dafa am lu ma màtt ci pax yonent bi jël loxoom bu tedd bi raay ko mu daal di wér waaye nag da daan ñëw ci moom par ñaari at yu nekk su ñëwee ci moom mu ñëw ci yonent bi yonent bi raay ko mu wér waaye bi yonent bi gaañoo moom ñaari at la nekk ci xilaafa gi façon bi ñëwaat ci moom mooy dangaru jaan bi ñëwaat ci moom mhm. looloo ko génne àdduna kon kooku shahid la ci yoonu yàlla Seydina Umar tamit shahid la ki ko rey Abu Lu'lu'a kenn ku nekk xam na ne yahudi yi la Seydina Ousmane eh, ibn Affan Muhammad ibn Abi Bakrin moo ko rendi Seydina Ali ibn Abi Talib Abdurahman ibn Muljam moo ko rey ñoo ñëpp shuhada u lañ yàlla nag nee ne xam ne ay shuhada u dañoo daanu xare ci yoonu yàlla mu ne bu leen yaakaar ne dañoo dee laa tax alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya yaa ngi dund hmm. su nekkee ni ñoo ngi dund Yusufa Nabha ñu ne ko su nekkee ne yontu yàlla Muhammad moo ngi dund kon pour mu gis Cheikhu Tidiane muy dund mu jox ko tariqa bi loolu amul benn benn problème hmm. kon point boobu mën nañ ko yemale foofu ñu delluwaat ci yeneen maqaama yi nga xam ne hmm. moom la yàlla jagleel Cheikhu Tidiane waaw mu fadail yi ci tariqa bi waaw ñetti maqaama nga laajoon xam nga maqaama yi ñu laajoon dama ne la woon Cheikh Tidiane dafa am ñetti maqaama xatmiya xatmiya ak xilaafa ak katmiya xilaafa nag mooy fi mu remplacé yontu yàlla Muhammad mooy leylatu bayatil xilaafatil muhammadiya niyabatan anil mamlakati rabbaniya benn guddi la goo xam ne dafa yëg ci maqaama remplacé yontu yàlla Muhammad saa sallam ci diine gi ak ci tariqa bi ak ci jubal ñi ñu jëm ci yàlla moom Cheikh Tidiane mais maqaama googu moo ngi ko am ginaaw fukki at ak ñeent ba mu amee maqaama xatmiya bi dafa am maqaama xatmiya matal wilaaya ci xeetu muhammad fukki at ak ñeent quatorze ans ci tegu ñu nome ko def ko xalifatan anil an rasulillahi wa anillahi mu nekk leylatu bayati alxilaafati almuhammadiya niyabatan anil mamlakati rabbaniya ñu teg ci nag loolu maqaama gu yaatu la suñ ci suñ ci dugoon ay mbóot yu bëri yu bëree ci nekk ci maqaama xilaafatu a cheikh tidiani an rasulillah beneen ñu teg ci nag fukki fan euh, weer weer ak juróom benn fan lañ ci teg yàlla jox ko beneen maqaama gu tudd maqaama katmiya hmm. kon maqaama yi gën a rëy ci maqaama Cheikh Ahmada Tidiane mooy maqaama xatmiya ak xilaafa ak katmiya hmm. xatmiya mooy matal na wilaaya ci xeetu Muhammad benn wali du ñëw lu dul ci ron tànkam ngay nekk maqaama xilaafa mooy wut na yàlla ak yonent yàlla Muhammad ci diine ji hmm. bañ ci tegee nag weer ak juróom benn fan mooy lii bu baabul alayi di wax ko baada shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al azizi al muntaqa mm-hmm. maqaamihi al maktuumi an kulli al wara siwa nabiyi ma waraahu wara mooy mu yéeg ci beneen maqaama gu kawe mooy maqaama katmiya mooy gi nga xam ne maqaamam gi dañ ko nëbb ci mboolem góoru yàlla yi mm-hmm. ñu nëbb ko ba ci yonent yi ñu nëbb ko ba ci malaaka yi Cheikh Ahmad Tidiane nee ne maqaama googu kenn xam ma fi lu dul yonent yàlla Muhammad من مقامه المكتوب عن كل الورى سوى النبي يقول يدل ينتي الله محمد ما وراءه وراء أمو بنين مقام قنك كوغوغا فوفو ليس سرين مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نفس لأن إني بمدحك أشد إنه النسك وإنك الختم والمكتوم والملك كنت في حضرات الغيب ليس سوى المختار يدريك لا إنس ولا ملك باين يسمطوي من كتمت في حضرات الغيب ليس سوى المختار يدريك لا إنس ولا ملك لكن تجليت للأكوان جملتها إذ أنت أنت ومنك الفلك والفلك باين يسمى كتب العرب <laughs> ما شاء الله <laughs> باين يسمى ما شاء الله نيم مل نعم، عرب دفا ييمه خمنا عرب دا من بو سن دوغون الله يالا موكو سي مايان توفيق واو mune ne neena yow yow cheikh tidiane ku timta yàlla def la naq neub la fi hadratul ghaib bi ci péyi xaybu yi ci xaybuk yàlla yi laysa siwal muxtaar yadrika ken xamul ko dul yent yàlla muhammad la insun wala malaku du nit du jinne xam nga yàlla dafa wax ci hadithul qudsi mune awliya yi taxta fina yi ya'rifu ma hadun gayri sama wali yi sama ron ëtt la nek man yàlla ken du len xam ku dul man motax le wali yàlla da nga gis xottu yaram wi ni nga yakarne xam nga ko fekkee nag amna lu nek ci ginnaw lo xam lo xamul lo yëgul loolu moo tax da na joxe misal ci lolu nek kam garra sabruka wabtisaamuka sahiban lamma raaka wa fil hasha ma la yura muna ne ñaata yoon la sa muñ ak sa muñ nax nit nga jàkkaarloog mom sa muñ ak sa muñ nax ko mu yaakaar xamna xam na la fekkee wa fil xacha ma la yura te ben gi ëmb na ci mbir yo xamne mom man ko xam abadan motax nak ndekete wali yàlla go gis rek dafa am maqama zahir am maqama batin mais katmiya nak maqama katmiya li soo di bàyyi gis niñ dexee ñu mu mm-hmm. nga xam ne amul benn wëlu yàlla guy ba xam ko fa mm-hmm. ndax Seydi Mouhamad Ibn Arabil Haatami yi ah, recherché woon na maqaama googu pour bëgg koo gis pour bëgg koo xam mm-hmm. waaye gestu na ko fu nekk mënu koo gis ba ñu ne ko zalika huwa al maktum kooku mooy ki ñu ko xam mu nekk alam bu nekk gestu na pour xam foofu maqaama Cheikh Ahmada Tidiane loolu moo tax Cheikh Tidiane nee ne man maay xutbul maktum boo xam ne kenn xamul sama maqaama dëgg-dëgg ku dul yonti yàlla Muhammad hmm. amul benn yonente guy koy maqaama ba xam ko amul benn nabi yu way solu kuy xam guy kuy guy koy maqaama ba xam ko amul benn malaaka guy koy maqaama ba xam maqaama katmiyatu Mawlana Cheikh da Tidiane hmm. kon ñetti maqaama yi la am lay shaayir di wax li cheikhi laylatun salaasun tanjali talaatuha fi ayni kulli mubassiri hmm. ne li cheikhi Cheikh Tidiane am na laylatun salaasun mooy ñetti guddi yoo xam ne tan jëri talaatuha mooy fenki na ma ngi feeñ fii ay ni kulli basiri képp ku am gis-gis ca yàlla mhm. xam na ne ñetti maqaama yi kenn amu ko ku dul Cheikhu Tidiane yi mooy guddi giñ ko joxee xatmiyatul wilaya ak guddi giñ ko joxee xilaafa an rasulillah wa anillah ak guddi giñ ko joxee maqaama euh, katmiyatu Mawlana Cheikh Ahmada Tidiane mu daal di nag wax moom shaayir bi xatmiyatun katmiyatun wa xilaafatun عنها تقاصر قدر كل مشمر ختمية المقام ختم الولاية كتمية المقام كتم الولاية خلافة من عنها تقاصر قدر كل مشمر من كيف كو يوغو جيم تي يالا gàtt nga pour yegg ci maqaama yooyu yooyu Cheikh Ahmed Tidiane rek la ko yàlla defal moom rek yàlla jag jagle fadail yi min salatul fatih wala ci min cheikh waaw ngeneelu ngeneelu tariqa bi ngeneelu tariqa bi ci daan wax na ci lu bari waaw léeg-léeg mu faral daal ci waxtaan ci sànni ci baaxeet geeg taalibe yi na war a mel bon ngëneelu tariqa tijaaniya ga eh, suñ fanaanoon fi di ko wax ba suba lu jeex day day mel ni li Cheikh Tidiane waxoon ne wa maa katabnaahu min maa laa nabuuhu bihi abaafu abaafi maa kunnaa katabnaahu mhm. mu ne la ma nëbb duma ko wax man Cheikh mhm. multiplier multiplier na ay junni junni yoon la nga xam ne maa ngi ko nëbb man Cheikh waxuma ko mhm. ñu ne ko la nga wax ci ngéneelu tariqa bi ak la nga nëbb nan la mel mu nekk nuqtatin fi bahril xidam mooy nga ñëw ci géeju mbambulaan mm-hmm. nga daal di ci guux benn guux mm-hmm. mu ne la nga guux mooy la ma wax ci ngéneelu tariqa yi mm-hmm. la nga la ma la nga bàyyi foofu ci géej gi mooy la ma nëbb waxuma ko ndax benn góor yàlla sax dafa wax ci tariqa bi ci ngéneelam affaire bu yéeme yéeme nga xam ne su la yàlla gënal may tawfiq sax doo ko gëm mu ne tijaan su dee woon ku jàpp tariqa tijaan su gaañu woon tey ñu suul ko ci place mu ne place bi sax ñax mu ne xar ñëw lekk ci ñax mi mm-hmm. mais suñu rendee xar moom mu ko ci lekk sa yaram alam na safara mm-hmm. nee na waxul tiijan bi waxul ñax mi waxul xar mi mais ki lekk ci xar mi mm-hmm. te kenn ku nekk xam na ne kenn du bëgg Cheikh yi comme ni mu ko waxee moom Cheikh mu ne man kenn duma bëgg lu dul ba ngay dee wali yàlla ngay doon fekk sax jàpp ko tariqa bi Cheikh ma Tidiane def ni ngëneelu tariqa bi su ma ko waxoon comme ni ma ko yonent bi نقول يا اللي يدب كل بقى وقالوا يا ربنا ما أعطيتنا شيء نقول يا اللي يدنا نجوا هنا يا الله ما يجي درا لن يورم ما يبدأ نقش عمل في جاي ما تنجني التاريخ دي كم خمول فم تنبلي أكفم يم كل يوم في الله محمد صلى الله عليه وسلم ما مكو جخشيا ما مكو جخشيا منه منه إن لنا ممشي هايوه إن لنا مرتبة تناهت في العلي إلى حد يهرم ذكره وإفشاؤه وليست هي التي ذكرتها لكم ولو ذكرتها لكم لاجمع اهل الحق والارفان على قتلي فضلا اما من سواهم من امن جراد كوينا سي الله با خامني ارام نيت توك دي واختاني جراد غوك ني نكو آه، بوبو موي بي موسى واخال من ديديت بوبو بوكو لاك يام لين موسى واخال بي ني سوما لين كو واخون سوما لين واخون جراد جي ني لاجمع اهل الحق والارفان من غور يالله تي خام يالله كوي مقامه konoon danañ daje ci ray bu ñu la rey ma su ma waxoon maqaama googu lu tax nag waxtaan maqaama googu araam parce que maqaama wëlu yàlla yi léeg-léeg dañ ci wax leen ni nit wëg gi la alaku te fekk yaay sabab bi moo tax nag su nekkee ne mbir mi dafa kowe nekk xususiye ñu lay wax nëbb ko balaa nga kaa wax ku xamul weddi ko alaku te fekk yow yaay sabab bi d'accord moo tax maqaama bi nee yegg na ci kowewaay foo xam ne araam na nit di ko waxtaan d'accord mbokk yi kon mu ñu ngi fii ci 2STV di waxtaane li moo di tarixatu Cheikh Ahmed Tidiane al Sharif al Fatimi yi ñu fii daal ak oustaz Ahmed Ba mu nekk it koo xam ne kii ci tarixa bi la bokk waaye nag itam wéeru ci waa kër Cheikh Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ndax itam foofu la jëlee tarixa bi dégg ngeen léegi mu tudd firim bi Cheikh Ibrahima Niass li nga xam ne wax na ko Cheikh Ahmed Tidiane yi waaye itam nekkoon taalibe yi waaye itam amoon may mm-hmm. ah, waaw waaw Cheikh Ibrahima Niass borom may la moom moom kenn du ko werante mm-hmm. gannaaw fadail waaw xam nga karaama yi dafay xaw a jafe jege ak yi. mojizaat dëgg waaw xaw ma nag foofu. loo ci mën a a dem nag ci charte ki la dëgg la euh, mujiza suñ ko waxee rek pour yonent yi la. mooy mm-hmm. miracle yi xam ne yàlla joxoon na ko yonent yi. Mm-hmm. Euh, karaama nag suñ ko waxee. teraanga yi waaw mooy teraanga pour wali yàlla la. Mm-hmm. les mujiza la mujiza ñoo ngi ko jëlee ci ah ajaza yujiza mujizatan. mooy dañu ko doon bokkuñu waaw bokkuñu. absolument waaw lee pour yonent yi la. mais karaama pour wali yàlla yi la. d'accord. Euh, wali yàlla boo gis nag yàlla làqal na ko ay karaama mm-hmm. mooy ay kaw kawti fa kay kéemtaan mm-hmm. yoo xam ne xëy na keneen ku ku du moom bëggoon na ko am na yàlla jagleelu ko ko loolooy karaama mm-hmm. karaama mooy mbaax gi yàlla di baaxee nitam léeg-léeg sax yàlla baaxee la karaama yow wali yàlla gi fekk doo ko yëg sax te fekk yàlla la beral lool te yow yëgoo ko sax léeg mu baaxee la ko nga xam ko karaama mooy li yàlla di baaxee wali yàlla yi góor yàlla yi euh, bokk na ci karaama yi Cheikhu Tidiane yi comme ni ko Mouhamad ibn Abdul Wahid an-Nadifi waxe ne qal qatri wal baxri wal xasa dafa mel ni géej gi dafa mel ni sax taw dafa mel ni doj yi dafa mel ni sax taw ngir ni mu bëree ak ni mu yaatoo waaye wa siimatuhu ixfaawuha ay yaxufyati mu ne waaye nag moom jikkoom moom cheikh mooy karaama yi ko yàlla may mu koy nëbb bëggul woon sax kenn di feeñal karaama da nga gis wëlu yàlla yi kenn ku nekk ñi di dox ci kaw jaww ji da nga gis wëlu yàlla yoo xam ne dañuy julli ci géej gi yàlla daf leen koy may da gis ay wëlu yàlla dañuy def ay karama yu bëri waaye Cheikh Ahmad Tidiane moom bokkul woon ci chimaam mooy ci jikkoom di bëgg feeñal karama ba soo ko doon feeñal sax nga nekk taalibeem daf la koy tere mm-hmm. kenn ku nekk mu xam na ne Ali Tamasini maqaama gi mu yoroon ci Cheikh Ali Tamasini nekk na ca Tamasina ci biir Algérie muy góob toolu tàndarmaam mu gis ci benn cëbbeeru tàndarma gu rafet mu ne bii dee jekk na ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane mu daal di ko sànni ne sii ila cheikh bismillah doxal jëm ci Cheikh Ahmad Tidiane ci ndigalu yàlla Cheikh a ngi toog di jàngale rek ba gis ca biiru tàndarma bi wadd gaa yëpp jaaxle wadd ci kanamam kanamam ñëpp jaaxle mu ne lii sama baax lu bee ko def tere naa ko ba sonn mooy ali tamasina su daan jógee Algérie tamasina di ñëw ci Cheikh ca Faas benn jéego la ko daan def waaye mu ñëw benn bés seex woo ko ne ko nii ngay defee nii di jógee euh, di jóge Algérie di ñëw fii ci benn jeegu bu ko defati bés ni ki tey jaaral ci àll gi mar comme ni miskin di mare nga xiif comme ni ñuy nga daj ak la ñuy daj ci coono ba nga yegg si waaye bés ni ki tey bul defati karaama bul defati xeetu karaama yi kon xam nga ne Cheikh bëggul woon di feeñal karaama moom bëggu ko woon moo tax shaayir bi new chiimatuhu ixfaauha ay xufyati ba Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahim wax na ci nee ne karamatuna fi qulubina kama anna karamati gayrina fi l afaq mu ne ñun suñ kémtaan yi su suñ xol yi la ko yàlla def def ñoo dindil kiiraa yi nekkoon suñ digganteeg yàlla salaatul fatihi effacé sin tilimu seetu xol yi ba jant jëmm yàlla gi man cee tàppe ñu ràññeeku yàlla foofu Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass ma ko mu ne suñ karaama yi suñ xol yi la ko yàlla def waaye nag defu ko pour ñuy naaw ci jaww ji wala yu mel noonu wala ñuy wax taw bi tawal muy taw mu ne su nekkee ne yaa ngi comparé yent yàlla Isa ak Muhammad xam nga yent yàlla Isa def daan dundal ñu dee yent yàlla Muhammad ñëw di dundal ruuxu ya deewoon ca yàlla moo tax shaa'ir bi ne yent yàlla Muhammad yow de yaa ëpp Isa grade ndax moom kémtaanam gu mag gi mooy day doon dundal nit ku dee waaye axuka isa daa maytan fa qaama lahu wa anta axyayta ajyalan min al umami mhm. yow ay siècle siècle maanaam ay quruun ay millions yi millions wala ay milliards doomu aadama nga daal di génnee ci lindam dugal leen ci leer dañoo deewoon ci bokkaal ak yàlla deewoon ci réere yàlla yow nga daal di effacer seen kilimu xol mhm. ba ñu mën a dund yàlla kon ndeke yow sa maqaama sa karaama moo gën sa sa moo gën a kawe bu Isaa bi Cheikhu Tidiane tamit bi ñu ñëwee Fatul Fatiha la utiliser mhm. pour effacer kilimu xolu doomu aadama yi moo tax bàyyi ñes ne ne ñun suñuy karaama dañ koy liggéey suñu digganteeg yàlla ba kiiraay yi nekkoon suñu digganteeg yàlla daal di deñ mm-hmm. karaama googu moo ëpp solo yeneen karaama mm-hmm. mais karaama cheikh yi nag dana am yu ma yu ma laal mm-hmm. ndax euh, Cheikh Ahmad Tidiane comme que maa laa yujadu kullu laa yutraku kullu loo xam ne mënoo ko wax lépp it lu tax nga bàyyi ko lépp il faut nga am loo ci laal euh, benn bés ba mu yeggee ci maqaama yu kawe yi moom cheikh moom Cheikh Ahmad Tidiane yi xaalis yi wàcc ci moom dafa toog ci suuku ma ci marché Madina Tilmisaan benn dëkk la Tilmisaan Cheikh Ahmad Tidiane toog ci marché bi boobu xaal baa ngi wàcc ci moom leeru yàlla yaa ngi wàcc ci moom moo ngi am ay imdaadaat di am yëg bi am zawqu mu mujj sax nekk yoon ci yàlla Muhammad soo ko xoolee ku ñëw ci moom sax su la laalee su nekkee ne da ngaa feebar da ngay wér ci saa si nit ñi nag bañ gisee loolu ci Cheikh ñoom ñëpp ñu daal di def ay rang di ñëw ci wa bari amin hini hmm. lu saafara dara lu mu wér ci saa Mm-hmm. ñii ñëw ahlul ahati wal amrad ñii dañoo feebar ñii dañoo lafañ ñii seen seen bopp day métti ñii seen biir kum laal rek nga daal di wër ci saasi mm-hmm. ndekete yow am na benn borom xam-xam boo xam ne dafa jàng fiqhu ji gi Cheikhu Tidiane ni muy defee waaye nag moom loolu neexu ko moom muy critiqué Cheikh di ko bëgg a wëddi mm-hmm. ci liy Cheikh di def noonu mu ñëw ne ko yaa cheikhu raaytuka tu alijul amrada hal indaka cheyun min tibbi dunub gis naa la yow sëriñ bi ay feebar est ce que am nga lii saafara bàkkaar ndax loolu gën a am solo Cheikh Ahmad Tidiane ne ko naam am naa lii saafara bàkkaar mu ne ko a inni bismillah dimbale ma ci rek ci ndigalu yàlla nga saafaral ma sama bàkkaar Cheikh Ahmad Tidiane ne ko idhab ila shajarati lyaqin wa xud minha uruqa niyati wa awraqa tadbiri wa simara tawadui wasxiqha fi mihrasi tawbati waj'alha fi qidri raja bi manasibi sabri وأوقد تحت آنار الخوف بحطب الزهد تناقض لك شربة فاشربها من حيث لا يراك إلا الله فإن الذنوب لا تأتيك أبدا أي واحد نك لمي في رموي من قدام السجارة بتو شجرة اليقين جرب دب يلا يقين موي سيرتيتود موي دب يلا دمال سجارة بتو يقين وخذ منها عروق النية نجا جيل سجارة بوبو ريانوك يينه parce que soy dem ci yalla il faut nga am yene bu sel innamal amalu binniyaati mu ne mbir yi yéene la kon soo bëggee dem ci yàlla il faut nga am yéene bu sell mu ne ko izhab ila shajaratil yaqin hmm. wa xud minha demal ci garabu ko yaqin nga jël fa yéene li ñuy tudde sibidu yéene hmm. uruqan niyat wa awraqa tadbir ak xobu tadbir wa simaara tawaaduy ak meññetug suufelu ndax soo bëggee dem ci yàlla il faut nga wàccee sa bopp hmm. moo tax amrum le farit nee yàlla gi woo na ko ne ko falaw kunta bi min nuqtatil baa'i rufita ila ma lam tanalhu bi ilati soo meloon ni man ni point bi nekk ci baawu bismillah bi mel parce que point baa ngi ci suuf dafa wàccee boppam te nee mboolem xam-xam yi fa la ko yàlla sol yàlla ne ko soo meloon ni man ni point bi nekk ci baa bi rufita ila ma lam tanalhu bi kon dinaa la yëkkati may la ci samay ndollal loo xam ne doo ko jotee pexe kon nit ki pour mu dem ci yàlla il faut mu dammati am amam il faut mu wàcce boppam ndax góor yàlla yi nee nañ sax mënoo yegg yàlla yaa ngi gis sa bopp hmm. mais da ngay dem ba effacer sa bopp dooga mën a fekk yaa ngi gis sa bopp loolu bàkkaar la ci góoru yàlla yi ñu ne ida qulta ma aznabtu qaalat mujibatan wujuduka danbun la yuqaasu bihi danbu ndax soo ma bàkkaar péeyug yàlla gi wuyu la ne la li nga accepté ne yaa nga fa nangu nga ko mu ne loolu bàkkaar la te xamoo ko kon eh, ci wàllu karama yi maa ngi doon lim noonu li Cheikhu Tidiane wax waaja wa def ko ne demal ci garabu yaqin nga jël ci reenu reenu yéene hmm. ak simaarub ah, simaarub tawaadu mooy meññetug suufelu nga dajale ko was xiqaa fi nihraafi nga dëbb ko ci gënnug tuub bi manaasibi sabri nga dugal ko ci waañu muñ ala kabiri raja nga sotti ko ci cinug njorto yàlla waaw ala kabiri raja nga dugal ko ci cinug njortog yàlla bu boobaa nag bi xaqa bi zuhdi da daal ko daal di ko toggee mattug dëddu lu dul yàlla mat mattug won adduna ginnaaw mooy zuhdu mooy dëddu adduna parce que yàlla sooy dem ci moom il faut nga woon adduna ginnaaw d'accord mu ne matt yi nag nekk xatabul zuhdi mu ne ko tanaq bi la ko charbatan dana ñor su ñoree fashrabha min haythu la yaraka illa allah nga dem naa ni ko foo xam ne kenn du la gis ku dul yàlla d'accord fa inna zunuba la taati ko ñu def pause bu law rek jël tariqa maanaam kuy jël tariqa Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane dafa am ay conditions yu ñu lay waxtaanal parce que arabe dañi leb ne la taslukanna tariqan lasta taarifuha bila dalilin fatahwi fi mahawiha bu li dugg ci yoon te laajte woo yoon gi lan lay bañ ak lan lay bëgg su nekkee ne am na ay pax yu nekk ci yoon bi nga faqasalu ci te doo yëg kon sooy jàpp tariqati tijaaniya dañ lay waxal condition yi waaye yi ci gën a am solo ñett la parce que condition yi dem na ba ñaar fukki condition ak ñett waaye comme que yi ci ëpp l'islam daf la ko digaloon moo tax yi ci gën a am solo mooy ñett mooy soo jàppee tariqa tijaani doo bàyyi parce que tariqa tariqa yoon lay firi ku jëm ci yàlla te nit ki su jëlee yoon jëm ci yàlla warul dellu ginnaaw ndax soo delloo ginnaaw fa nga jëm moo gën a yées fa nga jóge mm-hmm. te tamit soo jël tariqa bi dafa mel ni da ngay wëlluranteeg yàlla te kuy ak yàlla dafa dafa war a matal kóllëre gi ndax yàlla nee na ci alquran wa man awfa bi ma ahada alayhi llaah fa sanutihi ajran aziman képp ku matal kóllëre gu mu ak yàlla man nii yàlla yàlla koy wax mu ne kooku dencal naa ko pay wuréy yàlla waxaat ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu awfu bil uquudi yéen ñi gëm yàlla matal leen seen pas pas ya ngeen fasante ak yàlla dal di waxaat wa bi llahi awfu kol rek yàlla gi matal leen ko dal di waxaat awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula matal leen rek ndax kol rek dañ leen koy laaj nit ki kon suy jàpp tariqa tijaan yi dafa mel ni day ak yàlla bés bu nekk dana wax astaghfirullah téeméer yoon dana julli ci yontu yàlla muhammad téeméer yoon dana wax la ilaha illa allah téeméer yoon te tariqa bi daanaka lii la moo tax bàyyi ñet ne ne wa mal wirdu illa astaghfirullah halilu wa sallu ala almuxtaari xayri warayi wirdu dara lu astaghfirullah ak julli ci yonent bi ak wax wax la ilaha illallah fa fa wirdi li daain ak bi aynu dawaayi bay ñes neena ne wirdu gi dal li muy safara moy febaru ak jangaru xol gi nek ci doomu adam wa in qulta hal zal wirdu nahj muhammadin aqulu na am wirdi li nay li bay bàyyi neena nee laaje soo wirdu bi nak yonent bi daan nako def manela wallahi daan nako def ndax yonent bi daan na wax astaghfirullah ba sax ñëw na ci hadith ni inni la yughanu ala qalbi fa astaghfiru fi al yawmi sabina marra wa fi riwayatin miatu marra Mm-hmm. مئة مرة من من لودي دم يتوك سما خال من ليلو أم كيراي من يرن تبي لو خال من نير ما تخا وح وح صغر الله جرم يركوكيان يعني بين رواي بين ما وح صغر الله تيميريو كون يرن تبي وحنا صغر الله أو دمنا تبافم ما يرن تبي وحنا لا إله إلا الله كون أمو لين لين تيسوس طريقة بكل أم أساس فن على الكتاب والسنة mm-hmm. طريقة بين كفن دم كيسونا ينتهي على محمد القرآن mm-hmm. ما تحصل الطريقة بي war nañ la waxal ne tariqa bi ci yontu yàlla muhammad lañ ko jëlee te liñ ci jël yëpp ci sunna ak kitaab lañ ko lañ ko jëlee moo tax nag soo soo jël tariqa bi ñu la soo jëlee bul bàyyi ndax yoon la gu jëm ci yàlla ndax kollore la goo wóloranteeg yàlla ne bes bu nekk da def loolu mu nekk ñetti pàcc tariqa bi laazim bi ak wazifa bi ak afrul jumati laazim bi subaa ngoon la wazifa bi benn yoon ci vingt-quatre heures bi mooy obligatoire bi am nañ koy def ñaari yoon baax na أصول jumaati bi benn yoon la ci semaine bi kon soo jël tarixa bi condition bu njëkk mooy soo jëlee bul bàyyi parce que ci yàlla nga jëm moo tax yàlla Moussa ba muy dem ci yàlla def ne laa abrahu hatta abluga majma al bahrayni aw am fii xukban du ma dem di dem ba yegg majmul bahrayni wala ma dox juróom-ñaar fukki at du ma ñu ne ko lu tax ne parce que su ma delloo fu ma jëm moo gën a deuxième condition bi mooy soo jëlee tariqa bi doo ko booleeg beneen tariqa ndax góor yàlla yi ku nekk yonente bi def la charge de mission booy dox te bëgg ngaa am réussite goo xam ne bésu penc mu yàlla da nga ko ndamoo kanamuk yonente bi mhm. moo tax soo jëlee tariqa tijaani bu ko booleeg beneen tariqa ndax cheikh tijaani bëgg na xam ñaata doomu adama ñoo yegg ci tariqaam bi mhm. ñoo ci yegg yàlla pour mu ndamoo ko kanamuk yonente bi ngir lim jubal doomu aadama yi ci yàlla ndax yonente bi nee ne la an yahdi allahu bika rajulan mhm. xayrun laka min umuri niam yow yàlla jubal nit ngir yow rek moo gën nga am adduna ak ci biiram Mhm. kon soo jëlee tariqa bi doo ko booleeg beneen tariqa ndax soo yeggee yàlla doo xam ban tariqa la yeggal yàlla waaye dem dul yegg sax ndax soo ñibbi seen kër bi baa nga jël sa tànk bi teg ko fii nga jël bii teg ko fële day yàgg rek waaye doo yegg soo bëggee yegg sa ñaari tànk yëpp lay dajale ci benn mbedd nga daal di dox yegg waaye nag benn mutafalsif def ne mbindeef mi benn yàlla la musa am law kaana fihima la fasadata musul am ñaari yàlla mhm. mu ne nit ki mënul am ñaari diine kenn mënul nekk chrétien nekk musulman jigéen mën na am ñaari jëkkër kon su juree doom du xam kan moo ko jur kon nit ki mën na jël ñaari tariqa benn tariqa rek nga mën a jël mm-hmm. bu boobaa nag tariqa tijaniya wala taadwan aynaka anhu fa innahu gayurun wala yarda bi shirki lmahabbati bu sa ñaari bët dégg yi Cheikh Ahmad Tidiane ngay jël ngay dem di jël beneen tariqa mm-hmm. képp ku ne mën nañ boole tariqa tijaniya ak beneen kooku juum na waaye Cheikh Tidiane ñu wax mooy soo jëlee tariqa am bi doo ko mën a boole ak beneen tariqa mm-hmm. bu boobaa nag teelu condition bi mooy soo jëlee tariqa jaan yi doo ziyaara beneen wali bu dul tijaan di wut ci moom ndollal hmm. foofu nag war nañ fa leeral tuuti ndax am na ñuy critiquer tariqa tijaan yi ñuy wax soo ko jëlee moom tariqa tijaan yi dañ lay tere nga ziyaare sa mbokku jullit déedéet yow soo amee say mbokku jullit yooyu ziyaare ziyaare leen soo amee say xarit say am di jàmm ñoo a ziyaare ci beneen tariqa lañ nekk sax leen soo amee say waajur ñu nekk ci beneen tariqa ziyaare leen soo amee say ustaad wala say sëriñ yi la mu sa jàngal te bokk ci beneen tariqa loolu terewuñ ko li Cheikh tere mooy ziyaaratu istimdaad mais ziyaaratu imdaad kenn terewu ko même su wëlu yàlla bis nekkee dafa dee sax nga dem ci bàmmeelam ñaanal ko terewuñ ko mais nga ñaan ci moom lay Cheikh Tidiane di tere nee na man dama fiir man yaarifu ni yaarifu ni wax di man yaarif ni yaarif ni wax di ku may xam na ma xam man kese ndax ana rajul amin qaafin ila qaaf man maay góorub tariqa bi wala maay góorub wilaaya gi jëlee ko fi jabalu xaaf tàmbalee ba fi jabalu xaaf yem ku may xam na ma xam man kese du ma boole kenn waaye ndekkee ziyaara ñaari façon la ziyaaratu imdaadin ak ziyaaratu istimdaadin ziyaare wali bi ñaanal ko ak ziyaare ko ñaan ci moom bu njëkk bi moom tere wuñ ko waaye bu mujj bi ñaan ci moom boobu lañ tere ba nga xam ne ñu bëri ràññee wuñ ko ñu tere ñu tere leen ko définitivement li yàlla lay tawarratu balaa ñoo dugg ci loo xam ne dañ koo tere hmm. moo tax Baye Niass mos na dem ziyaare Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ca Baghdad kooku wali yàlla la bokk ci tariqa qadiriya ba mu gisee borom xam-xam ñu nekkoon fi xëy na ci réew bi ñenn ci ñoom ñu mm-hmm. comprendre wul mm-hmm. ñu ne xëy na bàyyi ñu si génne na tariqa bi ndax ziyaare na Cheikh Abdul Qadir Jeylaani mm-hmm. ba bàyyi dégg wax ki ni zurtu qabral qadir jeyli li yazurani li mansabin ali ziyaare naa Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ngir mu mën ma ziyaare ndax sama gara tijaane bu ko kon kooku ziyaaratu imdaadin la def mais deful ziyaaratu istimdaadi d'accord léegi kon képp koo xam ne da ngaa jël tariqa bi moytul benn ci ndax boo ci def rek génn nga tarixa bi waaye fekk yaa ngi respecté ñett yi ki la joxoon tarixa bi sax mën la cee génne mhm. moom mel ni nit ki su la joxee diine l'islam nga tuut ci loxoom fekk yaa ngi respecté ponk l'islam yi rek moom mën la cee génne mhm. fekk yaa ngi respecté condition yi ki la ko joxoon sax mën la cee génne yooyu ñooy sururu tarixa mhm. loo déggee loo déggee wax ju am solo ji nga xamee ne <coughs> ndax cheikh dafa am téere bu ñu mool tudde ko jawahirul maani te jawahirul maani ay wax la yoo xam ne sëriñ bi moo ko wax cheikh Ahmed Tidiane Acharif al Fatimi yi mu wax ci biir téere boobu ne almahdi yu minna wa sa yaqusu tariqatana maanaam li ñu tuddee almahdi yi dafa ne ci ñun la bokk cheikh moo ko wax du sama ay wax mu nekk ci jawahirul maani yi mu toftal ci nekk ne bu bu nekkee ci ñun it dina nekk koo xam ne ki day jëli suñu tariqa ban commentaire nga am ci jawahirul maani ak waxu cheikh ji cheikh ahmad tidiane waaw jawahirul maani téere la boo xam ne moolana cheikh ahmad tidiane moo doon wax aliou harazim di bind ما شاء الله بعاي بمثال نك أنه نهر يمده بحر لفا من نكي دخل لغو خم نجي جاكو يدولي لخ شخص متجاني ولايام أخم خمم أكماري فام لفا من نجي جي سوتي كريك سو خولي تيري بوبرك دنگ يومو خم نشاخ متجان لم أم يالا ما قدر لين كبير تيري بوبرك خينا وحنا تواحد يوجي منا المهدي منا هو سيأخذ طريقتنا مهدي نيت خم نيونان تبي دخ كو وخ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 mu ne su dara desu woon ci àllaa xel mu benn bés yàlla dina taw yi bés boobu ba génnee kenn koo xam ne ci ahlu baytam la tudd muhammadul mahdi mu ne fa yamlaul arda qistan wa adlan mu feesal suuf si njub ak maandute kama muli at jawran wa zulman comme ni suuf si fee ñëwoon dëng ak tooñ kooku kon xam nañ ne nit la koo xam dana ñëw comme que yonent bi jox nañu bichara bi mahdi yi moomu nag taalibe Maulana Cheikh Ahmad Tidiane dañoo toog di waxtaan di wax eh waaye mahdi yu koy garaat mahdi yoo koy garaat cheikh bëgg leen xamal ne ñoom lañ am ترون لمهدي أم فسكننا المهدي منا وسيأخذ طريقتنا ما دي كي من لبوك كسو نيوي سما طريقة بلا جاب مانا تالي بلا يدون لولو مو يجي جاهل المهدي مو نغف مو يجي كتب الطريقي بريسا بكي دورة الخريدة فدمي دنك فجيس يا خود الفريدة من قتل نفسه بس كده نفيا أخذها المهدي عند ظهوره لدا من له الإذن الصحيح بطيبتي فياخذها المهدي من المهدي دنا جيل طريقه بي عند ظهور سفيني لا دامن له الاسم الصحيح بالطيبة تواجا ام ديغل غور تا طيب كون لي مونغ كي دورة الخريدة مو شرح ياقوت الفريدة لي ني نفس ياقوت الفريدة لا محمد بن عبد الواحد النبي في كلمة خلفاء الشيخ مو دفا تيرين avant سن سن تيرين دي نيو في سان avant الحاج مالك avant الحاج عبد الله avant باي نيس avant téere bi moo leen njëkk fii mhm. téere bi wax na wax ji jëlee ko ci Maulana a Ahmad Tidiane mhm. kon ndekete mahdi yu moomu taalibe Maulana Cheikh Ahmad Tidiane lay doon ak maqaamam li muy kowe parce que xam nga Cheikh Ahmad Tidiane dafa toog benn bés mu dégg taalibe mi di wax benn wëlu yàlla bu tudd Ibnu Nasir dëkkoon ca Maghrib mu toog xam nga maqaama day fiir mu jékki-jékki génn ne leen law kaana Ibnu Nasirin fa qultu la yasawu illa tahayyat Ibnu Nasir su fi nekkoon ma ne ko bàyyil sa tariqa bi nga ñëw sama tariqa sama ndigal lay wéy mu dégg ñuy nettali limaamul mahdi ak a ko woon maqaama ak a koy woon garaat mu leen al mahdi minna wa sa yaaxudu tariqatana hmm. bàyyi ñax sax ci boppam am na ay sew sew yu mu fa wax yu am solo yoo xam ne baax na ku nekk dégg ko dafa dem Soudan am benn góor yàlla bu tudd Majzubul Mudassir dal di ko gis kooku góor yàlla la nitu yàlla la nitu yàlla yi dañuy xàmmee nitu yàlla ba mu gisee bàyyi dafa mel ni ku ndax dafa gis bàyyi rek loolu jox ko ne kaamilu zamane ngi ni ku mat ci góor yàlla mu daal di laaj bàyyi mais laaj ba njëkk a laaj def ko ne a anta rasulullah xanaa yaa yonent bi bàyyi ñëf ne ko lastu rasulallahi walakinahu akli wa sharabi wa kulli wa juzi duma yonent waaw du waaye mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama lépp mooy sama genn wàll daanaka maa yonent bi rek parce que koo xam ne mooy sa lépp di sa genn wàll nekkatoo fa moo fa nekk ndax góor yàlla yi dañuy def seey ci yonent ba yonent bi taxaw بأمني وما كان ربي يتخرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه فإذا حتى أحبه فإذا أحببته كنته yàlla nit ki du dañ bi ma jegee naa fi lay baax ba ma bëgg ko su ma ko bëggee nekkaat ko góor yàlla tamit noonu la ñuy bëgg yonent ba seey ci moom ba bàyyi nee ne ahbabtuhu hatta araaniya kuntuhu wa rabbi lam yaxluq makanin wala waqta ahbabtuhu bëgg naa yonent bi hatta araaniya ba ma xool sama bopp kuntuhu maa yonent bi wa rabbi lam yaxluq makanin wala waqta boobu yàlla sàkkagul sax waxtu wala place wala ma xusuus yàlla yàllaa koy jagleel. yooyu ay xusuus yàlla ay xusuus ay yeneen mbir la mu ne ko waaw ma majjurul mu def laajaat ko ne ko kon a antal mahdi xanaa kon yaay mahdi mu ne lastul mahdiya walakin sayfahu bi yadi duma mahdi waaye jaasi ja muy xeexee ci sama loxo la nekk su ma ko joxee ndigal mu wéy la ko kullu waxtin min idaaya ma jeexlu mu ne ko kon a anta isa yaa isa mu ne ko lastu isa walakin isa fi jëy bi duma isa waaye isa sama poche saa bu ma ko génnee lay dox mission te lu xusuus yàlla jagleel la yoo xam ne góor yàlla yi xam nga yonent yàlla Muhammad wali yi dana jeex ci moom bay wax ci làmmeñam Amr ibn al-Farid dafa jeex ci yonent yàlla Muhammad bay wax ci làmmeñu yonent bi ne inni wa in kuntu ibna aadama suratan fa lii fii imaanan shahidun bi ubuwati man su ma nekkee doomu aadama tey fii ci côté bi am na fu ma nekkee bàyyi yonent yàlla aadama xam nga ne yonent yàlla aadama nag yonent yàlla Muhammad mooy bàyyam ci wàllu ruuxu ndax bàyyi mooy bàyyi ruuxu yi ndax yonent yàlla Muhammad mooy bàyyi ruuxu yi comme ni aadama nekkee bàyyi yaram yi aadamu abul ashbahi wa muhammadun rasulullahi abul arwahi ca yowma alastu bi rabbikum yonent yàlla muhammad moo tontu siinoo konoon ba léegi ñoo nga fa ci ba yàlla waxi alastu bi rabbikum yonent yàlla moo tëll ne balee ahankay waaye ruuxu yëpp dañoo laboon bàyyi ñes na yàllal imaamil mutala mata ajaba bi bala lawlaahu daama mushkilan li uzmi ma qat yel jëli mhm. est ce que imam bu kowe gi bés ba yàlla tëlloo ne alastu bi rabbikum su nekkul woon moom la daama muskilan li usni ma qad yan jëli kon problème a nga fa ba léegi ñoo nga fa ndax feeñukaayu yàlla gu màgg googu kon ndeke mahdi yi taalibi cheikh ahmadou tidiane la ci tariqa bi lay bokk su ñëwee ci lay bokk ci tariqa bi lay bokk loolu moo taxoon cheikh ahmad tidiane nee ne al mahdi yi minna wa tariqata tariqata kii jawahar maani al faydu mooy lan ci gàttal al faydatu faydu cheikh tidiane daf ko waxoon xam nga yonent bi neewoon naa la bi muy dem bàyyeewuñu loxo neen waaye cheikh tidiane bi mu fi ñëwee muy làqu bàyyeewuñu loxo neen taalibe dañ ko laaj ñu ne ko yaa cheikhu anta bi rahilin an daari dunia ayna al xalifa hmm. ayna al xalifa sëñ bi yow bés danga dana ñëw nga gontu génn kër àdduna hmm. kon kan mooy sa xalifa xalifa xilaafa bi muy laaj ne xilaafa la yàlla nekkul xilaafa zahiri hmm. ku nekk xam na ne Cheikh Tidiane doomam mi ñoo ko wutu ginnaaw waaye nag xilaafa gi muy laaj ni xilaafa baatini mooy sa maqaama da ngay dund ci yàlla ban góor yàlla moo la moo la fay remplacer xam nga ma xilaafa gi si Ahmad Tidiane jëlee na ko ci Ahmad Abdoulaye Guindi ca Makka ndax Cheikh Tidiane ba mu yëgee foofu fanaan ci jàkka ji kooku ba ko te wëlu yàlla la boo xam ne du génn dafa yónnee ci Cheikh Tidiane yónn fa bëkk néegam bi ne ko demal ci masjid bi da nga ko fekk benn maghribi yu joxal ma ko lettre bi moo ñu bind ci lettre bi anta xalifati wa waarisu wa usika bil awlaadi min baadi yow yaay sama xalifa yow yaay doon sama sirru maa ngi lay dénk sama njaboot sama ginnaaw gis non nak lako joxe baye bàyyi parce que def dañ ko laaj ñu ne ko ya cheikhu anta bi rahilin an daari dunya fa al khalif kan moy khalifa mu laaj mu ne al moom cheikh tontu mu tontu mom cheikh ahmed tidiane mu ne al khalifatu fi aqsa ardin wa akhfa lawnin wa asqad zamanin yati bil yaati bilfaydati anadaka fi dahsha wallahi la yuntafau minna min baadi sayidi ali harazin illa ida zahara sahibu lfaydati wallahi la yurafu fi dunia wala fi l axira lii waxu cheikh la cheikh ahmad tidiane moo ko tontu mu ne moom Cheikh Ahmad Tidiane nee ne sama xalifa gi may euh, wutu ci sama maqaama nga may dund ci yàlla fii absa ardin moo ngi ci réew mi gën a sori xëy na nekkul fi ngeen di yaakaar wa axfa lawnin moo ngi ci melo gi gën a nëbb parce que kenn yaakaaru woon dana doon Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ci maqaama nga muy dund ci yàlla nit koo xam ne nit ku ñuul mm-hmm. waaye nag yonent yàlla Muhammad yaa gën a di junj maqaama nit ku ñuul ndax mu ne ittaxisu soodaana fa inna salasatan minhum min shubbaani ahli janna jàpp leen nit ñu ñuul ndax am na ñett ci ñoom ci ndaw ajjana yi lañ bokk ñu ne ko kan ak kan ne salman salman al farisi ak najashi ak bilal bilal mooy noddukatu yoon ci yàlla muhammad bi salmanul farisi mooy ki jógee woon iran jaral ko ñu koy jaay muy nekk jaam ba yegg ci yoon ci yàlla muhammad ak najashi buuru éthiopie yonent bi nee na ñii dee ay nit ñuul lañ waaye ji subbaanu ahli jannati lañ bokk salman toog na ci jotaay goo xam ne yonent baa ngi yonent bi jël baaraamam joxoñ salman ne law kaana al imaanu fi suraya la naalahu wahidu min haula mhm. ngëm yàlla su nekkoon ca biddiw ya kenn ci ñi ñu ñi dana dem ba moytu ko mhm. loolu garaat la boo xam ne yonent bee ko beral ñi ñu moo tax yàlla du xool lu ñuul du xool lu weex ndax yonent du mu ñëwee masala boobu sax la njëkk a effacé mhm. mu ne la la fadda li arabiyin ala ajamiyin wala li aswada ala ahmar illa bi taqwa ngeneel ñeelul ku weex ci kaw ku ñuul ngeneel ñeelul ci kaw ajam lu dul ragal yàlla ku la gën a ragal yàlla rek moo la ëpp ngëneel ci yàlla moo tax Cheikh Tidiane di leen junj ne leen sama xalifa gi may remplacer ci maqaama gi may dund ci yàlla moo ngi ci melo gi gën a nëbb ax faalewu ñun wa asali zamani nag jamono bu gën a jafe yaati day indi li ñu tuddee bil faydati faydu faydu nag tem bu yaatu la boo xam ne war nañ ko leeral ba ñu béy ñoo xam ne ñoo ngi koy dégg tey te xamuñu lan mooy faydu ñu xam lan mooy fay hmm. faydu benn mission la boo xam ne yàllaa ko joxoon bàyyi ñes pour mu doxal ko firndeel dara nag lu dul kasratul fathi fi hadi tariqati tijaani mooy fattu ak yegg yàlla ak xam yàlla bu bëri bi nga xam ne day xew ci tariqa tijaani ginnaaw bi Baye Niass ñëwee loolu lay fay bi di firi parce que kenn ku nekk gis na Baye Niass lim dugal ci l'islam d'abord daan na liggéey l'islam ba mu tuddee ko cheikhul islam daan na liggéey ak tariqa bi yóbbu na tariqa bi foo xam ne ba sax moom nee ne Afrique yëpp fu nekk ba nee ne moom sax soo bëggee cheikhu tijaani yaa man yuridu tijaani ay musaafahatan bi bay ci barxamatul fiha mukafaata soo bëggee Cheikhu Tidiane ba joxante moom loxo mu ne ñëwal ci néegu barxama fa nga koy fekk ñu ne ko bàyyi wax nga lu rëy mu ne walam aqul fanadan wala mubalagatan wa in aradta fa salniha muwajahatan waxuma pour fen waxuma pour ëppal te soo bëggee loola sax laaj ma ko fi ma jàkkaarla yoo ma won la ko te ñi ko war a wér ñëpp gëm nañ ko jamono ñam bokkoon jamono te nekkoon ay xulafa ci tariqa bi bañ gisanteeg moom nangul nañ ko kon nag faydu uh-huh. thème bu yaatu la mais Cheikh Ahmad Tidiane nee ne uh-huh. kooku li xam ne mooy xalifam bi su ñëwee gën a indi loolu ñuy tuddee faydu uh-huh. faydu nag mooy eh, bañ laajee bàyyi ñes lan mooy misaalu faydu mu ne sawur bi ran la tant imagine benn teen boo xam ne du nacc ak benn goj boo xam ne goj mooy buum bu ñuy rootee boo xam ne du dagg ak benn baag boo xam ne du bënn abadan ak benn ndaw boo xam ne moom mooy wëgg du sonn abadan muy sotti ci mbalka moo xam ne du fees abadan min al azali ila al abadi jëlee ko balaa dara ba lépp jeex mu ne looloy fay ndax yàlla mooy dolli yonti yàlla muhammad te fa ko yàlla di jëlee du jeex yonti yàlla muhammad mooy dolli cheikhu tidiane te fa mu koy jëlee du jeex cheikhu tidiane moom mooy dolli maulana cheikh ibrahima ñax te fa mu koy jëlee du jeex min al azali ila al abadi moo ngi sotteeku li kulli muta mutaarribin min al buhuri wal awani kenn ku nekk la nga dékk ngay am su nekkee ne kopp nga dékk du tol noonu ngay am su nekkee ne paan nga nekk lu toll noonu ngay am moo tax jaw jaw jawharatul kamaali ne li kulli mutaaridin min al buxuuri wal awaani buxuur mooy ay géej wal awaani mooy ay ndabal kenn ku nekk ak la ngay doon ci Mawlana Cheikh ak la ngay am si moom ci fat moo tax bi ñëwee moom Baye nit ñi di yegg yàlla di yegg yàlla te noonu lañ ko waxee woon parce que Muhammad ibn Abdul Wahid an-Nazifi wax na ko ci téeréem bi ne taduumu wa tabqa ma duhurin tawilatin wa fi axiri zamani taati bi faydati mu ne taduumu tariqa tijaani dana ci des dana sax wa tabqaa des ma duhun tawilatin jamono yu yàgg wa fi axiri zamani suñ demee ba mu jëntalu jamono comme suñ jamono jii fii tey taati faydatin tariqa bi dana indi li ñuy tuddee faydu faydu mooy liy sotteeku taw gay taw jëlee ko ci asamaanu ko yàlla gi jëm ci xolu doomu aadama yi pour raxas tilimu lu dul yàlla ci xolu doomu aadama yi noonu la ko bàyyi ñu tuddee ne wa inna al awaani qad taltaqu kulla am fayi mu ne ndabalu doomu aadama yi fees na ci lu dul yàlla ma ne tuural leen ma ndox moomu ma sotti leen gu bees ngeen xam kan mooy seen borom barakallah wa inni ara min faydihi alyawma faidan falam yulfa za qalbi nabi fi muwassai barakallah Ahmed ba bàyyeegu ma sax xam naa lu mat ay ñeenti minutes wala yooyu moo ñu dese ma fàttali rek ne ba léegi ñu ngi fii ci 2STV di fi waxtaane tariqatu Cheikh Ahmed Tidiane yi waaye nag itam ak laaj yi ak bay gi nga xamee ne ci waar wi Maolana Cheikh Ibrahima Niass bay na ko ci mu di lekk mbay moo xam ne mu rafet la mm-hmm. euh, luy tënkee euh, dimbalee ko jullit yi ak ñu nekk ci tarixa bi ñu tëj waxtaan mm-hmm. euh, tarixa bi dafa ñëw pour xettali doomu aadama yi ndax nit ñi dañoo réeree yàlla mm-hmm. te nag doomu aadama yàlla dafa sàkk pour nga xam nga xam yàlla mais yàlla sàkku la pour nga réeree yàlla tariqa bi ñëw pour won la yoon bi tariqa yoon lay firi pour gindi la ne la soo jàppee yoon bi bàyyi woo ko da nga yegg yàlla ndax bàyyi ñes nee ne waalam bi anna tariqa cheikh baaminatun darkal wusuli walaw fi axiri ramak xamal ne tariqa cheikh ahmad tijani warul na doomu aadama gi yegg yàlla doonte ci mujjante la xefam képp ku jàpp tariqa bi rek da nga mus a yegg yàlla kon loolu su nekkee ne jàpp nga tariqa bi rek yem fa moo soo jàppee tariqa bi nag nga tarbiyu ba ngay dund da nga yegg yàlla bànneexoo jaamu ko yàlla bànneexoo xam yàlla gi bànneexoo yegg yàlla gi booba yaa ngi dund jamono yu yàgg hmm. comme ni ko xale yi tey di ko defee pambe nga ngi ne yàlla may na ko mu am fattu ak wusul ilallah yegg yàlla xam ràññee te yàlla utul ci doomu aadama bi dul xam ko bàyyi ñet ne law yaalamul insaanu man rahmaanu yalqa shurura daahikan insaani nit su xamoon ko yàlla dana dajeek ay jafe-jafe ak ay coono ak ay problème di reetaan hmm. moo tax tariqa bi dafa ñëw pour xettale doomu aadama yi xettali xale yi xettale mag ñi ndax bu njëkk ñi dañ yaakaaroon xëy na tarixa bi ngir mag ñi kese la soo koy jàpp sax ñu ne la xaaral ba nga nekk mag tuuti xale nga hmm. soo ko jàppee da ngay gaaw a dee waaye nag ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na yiw ni ko mag ñi soxlawee noonu la ko ndaw mi soxlawee te ki gën a baax ci ndaw mi mooy kii jëf jëfu mag ñi di nuru nuruloo mag ñi ki gën a bon ci mag ñi mooy kiy jëf jëfu xale yi xa jëf xale nag pour mu jëf jëfu mag mooy mu téye tariqa uti boromam Mhm. ndax xale boo gën a yelloo loolu sax ndax lu njëkk ci xolu xale loolu ci mujj su nekkee ni lu baax la lool la su nekkee ni lu bon la lool la ndax xol bi dafa mel ni feuille blanche boo xam ne kenn duñ bind ci dara mhm. suñ jàppee tarixa bi loolu dana leen dimbale ñu xam yàlla kon tarixa gaa ngi noonu faydu gaa ngi noonu xëy na ci beneen majaal bu gën a yaatu incha allah danañ ko leeral. Mhm. jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm. voilà eh, sant di la gërëm di sant itam mbokk yi nga xamee ne ñu ngi doon seetaan li ci am rek mooy fii ci 2STV ajjuma ju nekk daañu ci ñëw waxtaan ci li nga xamee ne dafay teel l'islam waaye itam waxtaanee mag ñi nga xamee ne ñoo lekk ci biir Sénégal bi yëpp wërngal kàpp ak tarixa bu mu mën a bokk ak bu mu ci mën a rek fu mu a doon euh, bëgg nañ taataan ci xam-xam boobule waxtaan ak ñoo ñu le gën ko yaatal jàppale ko bokki jullit yi moo tax tey ji ñu daloon fii Oustaz Ahmed Ba nekk koo xam ne kii doomu daara la bokk ci tarixa Cheikh itam ah, fii teg ah, ci waa kër Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ak itam tey jii ki ñu doon waxtaanee di ki nga xam ne moo di borom tarixa bi gannaaw yonent bi mu di Cheikh Ahmed Tidiane nii nga xam ne itam moom mooy ki nga xam ne mooy cislaay yi mm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal jàmm te di leen jox ndax incha allah ci yeneen ajuma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu barhaamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan